internautes di leen ziar bu baax a baax te leen di ñaanal jàmm ju sax dàkk noonu lay xuusee eh, dem ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuy leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko nag sëriñ Sidi mu sëriñ la xaat Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam mis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalif yi ci biir réew mi yépp yéen ñi nga xam ne nag yéen a ngi bàyyi xel l'émission des émissions fii si Solution TV Solution Info ñu ngi leen di ziar rawatina nag waa diaspora bi nga xamante ni nii duñu tay benn yoon ci duñu suivre ñu fas yéene di ci ànd ak comme lundi bu jot rek ak alaaji Sanjogu Meng ñu bàyyi ko mu nuyoog internet yu ñuy suivre alaaji maa ma ngi lay fay di sénégalais yi nga xam ni ñu ngi ñuy teewlu ñëpp di am ci ñëpp mbégte ak kontaante ci solution info. Mhm. di am amaat mbégte ak bànneex di nuyu sénégalais yi nekk bitim réew mais aussi tamit di nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew mi. waaye di nuyu sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu baax sëriñ xaadim na ci kër ga njaboot ga yëpp hmm. di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makaarimul Axlaaq nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp di am mbégte ak kontaante ci yow soxna si <laughs> jërëjëf nag ma bëggee ba def meer du ko nangu amul problème <laughs> maa ngi maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax nag euh, saa euh, tey nag euh, comme niñ koy baaxoo di defee rek daañu ànd ak yéen ak ki ñuy wax Malal Talla nekkoon fële ci émission bi di jàkkaarloo am na ay kàddu yu mu yëkkati ci candidature ki nga xamante ne ni moo di bastiru Bassirou Diomaye Faye lam ca wax nag du lenn lu dul rek ku nekk membre exécutif bu parti bi nga xamante ne ni moo di Pastef dañ ko dissoudre mënuloo nekk candidat. ki ñuy wax Amath Thiam itam feelu ko wax ba wax benn ndogal bu nga xamante ne ni conseil constitutionnel jëloon na ko en 1993 dinañ ci ñëw ci kanam tuuti tegal leen ko comme ça ngeen gën ko comprendre alaaji indi si ay xalaatam leneen muy El Malick moom itam euh, addu ba tey euh, ci ki nga xamante ne nii moo di Bassirou Diomaye fay muy euh, candidat bu ex Pastef wax itam ci article boobu boobule li mu wax ci pour ci képp ko xam ne rek bëgg nga nekk candidat jeexale ko ak Bouba Ndour mi nga xamante ne ni itam euh, toog na ci émission boobu di jàkkaarloo euh, wax fa jaar-jaaram euh, ci ba muy ndaw ak digganteem ak frère di Youssou Ndour wax itam ci doomam ji nga xamante ne ni moo di Philippe di dund ci États-Unis ni mu mën a def pour mën a gagner sa vie te kenn du ko tegal loxo ñu daal di sóob nag waxtaan wi dooree ak kàddu yi nga xamante ne ni Malal Talla yëkkati na ko jëmale ko ci candidature Bassirou Diomaye Faye ak Amath Thiam lam wax ñu dem dellusiwaat mu am ay dossiers yoo xam dafa ubbeeku parce que bu ñu seetoo deux mois ci gannaaw procureur demandé na à ce que la jonction des procédures entre le dossier de ak dossier Ousmane Sonko mu jël dossier Diomaye Faye bu jëlee ko correctionnel parce que c'est un dossier correctionnel jëlee ko correctionnel andi ko criminel je pense que c'est pas anodin si sama jàngat c'est pas mm-hmm. anodin parce que nee dafa am ay faits nouveaux parce que léegi kon Diomaye Faye li procédure bon loolu bu amee certes comme on dit c' est général de droit bi wax ne une personne bu la yoon di topp atteguñ la tiju ce qu'on appelle la présomption d' innocence jusqu'à ce que tribunal boo xam ne moo compétent ñëw àtte la ba ne yow li ñu toppee yaa ko def ba voie de recours jeex alors que on pas encore à ce stade mais dafa am benn mais bu ma jaaxal parce que hmm, dafa am ci disposition code électoral benn loi bu ne article stérification qu'il juge utile point renvoyé wul de waxul renvoyé ci L cent vingt et bi yaakaar naa mooy énumérer les pièces à fournir. article cent vingt cinq cent code électoral daf ne le conseil constitutionnel pour s'assurer de la validité des candidats de validité ça veut dire beaucoup de choses c'est une disposition très élastique qui qui boo xam ne dafa jox conseil constitutionnel tout son pouvoir d'instruction et de requalification hmm. Diomaye est en prison il fait partie du bureau exécutif de PASTEF et un membre d'un bureau exécutif d'un parti dissous ne peut pas aller aux élections loolu leer na maintenant qu'est-ce qui empêche à est-ce que à l'intérieur de PASTEF ils n'ont pas un problème pour désigner quelqu'un et ça il faut aussi un courage politique pour le dire si c'est Guy Marius Sagna la jërëjëf Mamadou Diouf lagi dégg nga euh, Malal Talla ak ki nga xamante ne ni moo di Amath Thiam balaa ñuy ñëw nag ci Amath li mu wax Malal mu ngi laaj ne euh, est-ce que képp koo xam ne nii membre nga ci euh, parti bu nga xamante ni dañ ko dissoudre di nga am possibilité pour mën a nekk candidat. <laughs> non Malal kañ dana leer na dana lii moom leer na. mais après daf ne question lay laaj. Mm, ko kon buy laaj question bu mu wax ne leer na. Mm. que. lu leer moom. Hmm. boo xasee ba ne leer na rek question amatu hmm. kon laajatoo waaw loolu nag bon man dugal naa ko rek ci peut-être xamut euh, wax ci loo xamut parce que parents saay mën na indi euh, fakkastalu waaw parce que ñi tànn Bassirou Diomaye fay euh, xam nañ droit xam nañ di leen yoon may tànn ñu pour caaxaan du dëkk kon bi ñuy tànn xool nañ ndax lu mën a ne la wala nekkut lu mën a ne moo tax bu nit jëlee temps tànn xam nga ñoom dañoo defe ne tànneef yi lu bett Ousmane Sonko la donc dañoo gëmut waxu Abbas Fall mi leen wax na leen lii yëpp Ousmane Sonko pare woon na ko depuis un an kon tànneef gu tey. Mm-hmm. donc il faut que ñu xam ni am na loo xamante ni. xalaat nañ ci laataan ñu koy def te buñ ciy xalaat xam nañ ni fi ñu jëm mbirum yoon la te Pastef kenn du ko jéggal dara kenn du ko baal dara daañu saytu xool nu ñuy defee li nga xam ni d'abord moom la ñuy def waxuma ni nag ba tey ne Bassirou mooy candidat wu Pastef parce que Ousmane Sonko mën na lu ne lu ne lim mën moo ko indi ba tey fi mu ne mhm. waaw parce bu mënutoon lu ne nasaxal nañ ko bu yàgg leneen li nga xam ni waa ji wax na ko euh, mu ci conseil constitutionnel man damay jàpp ni conseil constitutionnel euh, jàpp naa ni bu fekkoonte ni hmm. euh, la ñu yaakaar mën na leen koo defal ay DG ak yooyu yëpp doo ko dégg jàpp naa ni conseil constitutionnel boobu même bu ëllëgee muy def ñoom li ñu bëgg mais jàpp naa ni wóoru leen waaw wóoru leen ndax lañu bëgg danañ ko am parce que sinon kon doon nañ jox Ousmane Sonko parrainage am bu yàgg mu continuer di doxal ba jëm ba conseil constitutionnel ñu nasaxal ko mais moom si li ma sukkandiku mooy que ni charge yi ñu teg Ousmane Sonko ba tax tey jii nii mënuñu ko euh, jox euh, fiche parrainage charge yooyu lañ teg si Bassirou Diomaye Faye moo tax mu ni est-ce que bu ñu demee ba toll ci conseil constitutionnel war a euh, yamale mbir yi du jël responsabilité puisque Bassirou dañ koy jiiñ affaire u terrorisme. waaw xam nga jiiñ moom bu fekkee ne ku ñu jiiñ lekk mën nañ cee tënku ba nasaxal la. Mm. jiiñ jiiñ la rek. man mi mën naa laaj ji li ma la jiiñ est-ce que dëgg la est-ce que loolu dafa war a tax ñu ne yoon war naa tënku ci jiiñ giñ la jiiñ loolu lu woyof la lool woyof tool jiiñ loo xam ne bi ñi la jiiñ mu ñu ko prouver et pourtant am nañ temps depuis lors pour leeral ko pour prouver ko mënuñu ko prouver ñu ne ci ay tuuma kese ah non non non tuuma moom yàgg na ci àddina waaye faw yoon def lu tax ba léegi benn action justice boo xamante ni bi lijjanti na mbirum Bassirou Diomaye fay ci liñ ko tuumaal noonu eh, newuñ ci kaso bi de waaw ñu ngi ci kaso bi kaso bi moom nekk fa ñu téye la loolu moom yomb na waaye nag bu ñu demee ba ci li nga xamante ni bi ñoo yore yoon mën naa demee ne xam nga man damay jàpp ni Bassirou Diomaye Faye euh, le fait ko Sonko tànn ko maanaam dafa jaxase jaxasewaat carte gi parce que defe naa ne Bassirou Diomaye fay li ko téye woon hmm. mooy Sonko lii ñu la teg teg nañ la ko taqal nañ ko sa numéro 2 donc yow bu ñu la bloqué rek xalaatal keneen waaye bul xalaat kii. Hmm. comprend nga. loolu moo nekkoon li nga xamante ni bii mooy mbir mi moo tax defe nañ man ragal naa ni loolu bokk na ci li tax moo tax yeneen tuuma yiñ ñu tuumaal Sonko dal ci kawam nga xam ni tey Sonko bu doon def choix du choisir Bassirou Diomaye Faye. maanaam Basiru dañ ko doon galgal far Sonko tànnaat ko comprendre loolu mu tànnaat nag ki nga xam ni moo nekk ci kaso bi loolu jaxase na waat xel yi parce que prévoir ñu woon loolu jàppoon nañ ñu ci ñu ci bitti parce que ñoom loolu lañ doon kii sax ci ñi ci bitti lañ jàppoon ni ñooñu la ñuy tànn far tànneef gi delluwaat ca prison ba loolu nag benn acte la boo xam xamante bi Sonko teg na ko mu nekk acte boo xamante bi acte politique la hmm. léegi nag li mu ci jublu moom moo xam mais ci jamono ji ñu nekk nii ma ma jigéen jamonoy stratégie la léegi nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci palateau yi di wax ñu ci bari ñenn ñi dañ leen a yóbbante hmm. ñuy ñëw di jàllale ay message ñeneen ñi dañoo xamut di wax ñeneen ñi Euh, parce que fi mu toll nii moom kenn mënu la wax exactement pion yi Ousmane Sonko di teg ak pion yi Macky Sall di teg bu ci nekk li muy firi maanaam dañuy njort rek mais en tout cas Ousmane teg na benn pion boo xamante ni bii def na effet waaw ko tegee ba nëgë ni mooy coow ci penc bi donc Ousmane Sonko wane waat na foofu beneen mbir wane na ni mën naa dem gañe comme ni ma ko defee fal ay nit ñoo xamante ni bii man faluwuma mooy député yi ñu génn ànd ak mairie yi fal ay nit yoo xamante ni man maa leen fal mën naa nekk ci prison bi ba tey fal ku nekk ci kaso bi maanaam mi ngi wane yeneeni mbir yoo xamante ni bi te loolu defe naa ni président Macky Sall war nañ ci jàngat mm. xam ni maanaam dafa mel ni lii am am na ba pare waaw que ni le fait que mu ne Bassirou Diomaye Faye mm. discipline boobu nga xam ne bii seen parti am nañ ko ñëpp nangu koo topp loolu mbir la moo xam ne mbir mu extraordinaire la du ñi nekk ci parti bi doo nga koy topp de mais sympathisant yi ñi nga xamante ni bii rek dañoo bëgg Ousmane Sonko. Hmm. ak ñenn ñi nga xamante ni bii tey euh, kii injustice bi ñu gis moom moo leen ci boole ñoo ñu topp ko maanaam ñi topp Basirou Diomaye Faye fi mu toll nii moo bari. parce que seen parti topp nañ ko. Hmm. sympathisant yi ñooy ñi ëpp ci réew bi hmm. topp nañ ko ñoom ak ñi nga xamante ne bi mooy ma majorité bi nga xamante ne bi nag ñoom Sénégal gu normal lañ bëgg réew mi di dox ci jàmm ak siraatal mustaqim ñoo ñuy wëlbati ko topp ko hmm. parce que da lay wóor ne la ni parrainage bi demee ni gis nga ñoo xamante ni bi daraay politique ñoru leen mais nag dañu jëm ci ay yoo xamante ne bi tey hmm. dafa am sénégalais yi lu ñu bëgg a wax te nañ ko wax. te it dafa am kuñ ciy déglu. alaaji euh, effort yi ñuy def nii yëpp est-ce que mënu leen jural ëllëg er-, euh, erreur parce que waa ji mi ngi koy souligner nee na suñ demee ba foofu euh, conseil constitutionnel validé wul candidature kii di Bassirou Diomaye fay bu boobaa delluwaat ginnaaw dootul mën a amati day fekk mu trop tard. déedéet <laughs> xam nga delluwaat ginnaaw. Mm. mooy nga xam nit ki. Mm. lan la prévoir fi mu toll nii moom xamut lu mu prévoir. moom da moom moom fokk moom moo focus ci bakk Bassirou Diomaye Faye ak sénégalais yi ñu wax ne topp leen Bassirou Diomaye Faye ñu topp Bassirou Diomaye fay ak ñoom ñi jàkkaar ñoom ñoom fi mu doon ñoom ñoo jaxasoo mais Sonko jaxasoo det te Sonko mbir bi du mbirum dellu ginnaaw de bu ñu demee ba toll ci vote ba ñu valider candidat man nee naa la ba saa yu ñu valider yi ba pare Macky Sall bi mu mën a def mu nekk erreur bi gën a rëy mooy mu bañ a bàyyi Ousmane Sonko bokk ci élection yi gis nga bés bu bàyyee bés bu ko bàyyee def xam nga kañ lay comprendre bés bu ñu valider candidature yi ba pare lay soog a xam candidat Ousmane Sonko mais fi mu toll nii nu ko xam. Hmm. déedéet mënu ko xam de bàyyil moom valider ba pare. alaaji yaa ko wax de ay non bàyyil ba mu valider ba c'est que lenn moo am xam nga soog a Sonko dafa yor lenn. Ah. xam nga muy lan. Mm-hmm. ma jigéen la muy ma jigéen. comprendre nga maanaam ku mu joxoñ yow te loolu moom mooy ki nga xam ne moom la ko suñu borom defal ci jamono jii ñu toll. Mm. loolu nag da nga koy mën a nangu li gën nag ci ki nga xam ne mooy président Macky Sall. parce que Sonko taxaw na publiquement ne tu topp kenn. te man gëm naa ni sonk ku ko fal du topp njabootu président Macky Sall. Mm. mais bu ko fal bu ko defut xañ ko ko kii ñëw dana leen topp. te kii ñëw ci barakaatu sonk lay jàlle. Mm-hmm. mi ngi noonu Aïcha ñu dem ànd ak nag El Malick euh, Ndiaye moom yi ba tey euh, ci seen stratégie yi ñu teg rawatina nag ci ba Bassirou Diomaye Faye ak explication yi mu joxe ci article 57 ñëwaat. candidat le président Ousmane Sonko ndax xeex baa ngi continuer mais xam nga article bi waxi naxa sa xandang la jéem a tuur lëndëm la mais li ma ci rassuré mooy ça montre que a bloqué candidature Bassirou Diomaye Faye candidature président amul fenn fu ñu ko bloqué moo tax ñu bañ ko jox parrainage ñoom foofu lañ sukkandiku ngir bloqué ko bañ ko jox parrainage malgré décision de mais xam nañ ne amul fenn fu ñu ko mën a bloqué euh, tey li am solo mooy L57 wax na naka la ñuy nekkee candidat waa ilaa benn parti moo lay investir wa ilaa coalition moo lay investir maanaam coalition boo xam ne minimum deux partis yu am récépissé légalement constitué wa ilaa nga nekk candidature indépendante ñoom nag encore une fois dañoo moy dañoo mooy mooy dañu yaakaaroon ne ñun cuune nañ cuune goo xam ne candidature indépendante la def non quand même kenn si ñun nekkul par des partis politiques légalement constitués ce qui fait que donc article 57 xaw ma kan lay éliminé waaye du candidat au Pastef donc Bassirou Diomaye Faye encore une fois reste totalement éligible et participera à l'élection si jamais il parce que ñoom fi ne nii ñoom ñooy choisir soit président Ousmane Sonko duma leen ñu xam ni lu normal la poulain wu président Ousmane Sonko duma leen duma yu métti mu nekk une humiliation internationale c'est à eux de choisir entre ces deux là mais à la kulli haal élection yi moom xaw ma ban article moo ci moo ñu si tere bokk waaye du 57 ndax boobu dafa leer naññ c'est-à-dire que boobu waru leen sax yéen di ci polémique ak di ci poser question parce que c'est assez clair dès l'instant que ñu ne leen ñun du ñu indépendant des partis jërëjëf Modou Alaaji mel na ni eh, El Malick eh, li ngay wax tout à ak li mu yëkkati léegi si ay kàddu soreewul noonu. waa xam nga ñoom li fii lañu ñu faussé mbir mi maanaam dañu yaakaaroon ni Pastef moom leer na la rek ñëpp sonk lañ topp bu ñee keneen rek parti ba tas parce que ku nekk day fëgg dënnam ne man la man la man la parti ba ñoom loolu lañ yaakaaroon maanaam foofu lañ misé woon mbir mi mm-hmm. yaakaaroon nañ ñi. bu ñu nee El Malick day ñëw ne mana Biram euh, Souley Biram Souley ne mana Abbas Abbas ne mana kii ne mana ku nekk kii bu ko defee parti ba tas na ñu ne léeboon ñu lippoon amoon na fi daan am ñii nag wane ni ñoom dañu suddewu euh, ñoom benn lenn lañu bokk muy lenn lii maanaam ku ca ne la nga xamante ni bi ka nga xamante ni kii moom la Ousmane Sonko joxañ rek kooka la ñeneen yi moom amatuñu question bu ñuy posé doxalatuñu dara boo gisee El Malick ni nga xam ne noonu la taxawee di défendre candidature Sonko mhm. noonu lay défendre candidature Bassirou Diomaye kon problème amut boo dégloo Birame Souleye loolu la boo dégloo kii lool la ñoom ñëpp noonu la donc lii mooy li nga xam ni moo raflé woon ci arène politique bi parce que nag bariwut ci parti politique yu mu am parce que président Macky Sall nag tas na parti yu bari. waaw mm-hmm. ah mm-hmm. tas na AFP. AFP tas na Malick Gakou AFP la nekkoon. Mm-hmm. rajo xoo na fi mu doole AFP kenn xamatul ku fa ne. tas na parti socialiste partie boo xamante ne bi def na fi plus de. quarante ans tas na fi mu toll nii socialiste ya ñoom xalifa jaar nañ ñale ñale jaar nañ ñale tas na PDS. PDS rajaxoo na ñii aw na ñii fitir APR lañ mujj doon ñee nekk leen ñee nekk ñeneen ñi nekk ci lu kenn xamut di xaar ku du di ku demut ñëwut mooy parti boobu tas na defe woon na ni bu jaaree fii yëngal mbir mi dana yëngu mais li ko jaaxal ci Pastef mooy loolu la mënta am mais jeexagul de. waaw <laughs> jeex na dañuy dolli. <laughs> ku nekk sa stratégie ngay. non xam nga Pastef ni mu juddoo ak ni ñee juddoo bokkuñ. waaw ñee dañoo ñëw ci parti politique ngir jariñu woon ci. Mm-hmm. ñii nag ñoom dañoo sampoon parti politique dañoo samp parti politique ngir jariñ réew mi fekk intérêt réew maa ngi taxaw. Mm. seen projet bi nga xam ne moom lañ jàpp ni moo mën a defar réew mi. Mm. dara mënu koo tas donc loolu mooy li nga xam ne bii foofu la échec mm. waaw. en tout cas <laughs> doy na waar ngi noonu euh, ñu jeexale ko nag ak euh, kii di Bouba Ndour mi yëkkati ay kàddu wax ci jaar-jaaram ak diggante ak magam jii di Youssou Ndour ak doomam Philippe Ndour ñu dem dellu dem na am naa chance dem États-Unis bu ma njëkk maak Youssou ñoo bokk ndey ak sama premier liggéey si laa xam ni àddina 1988 je le dis mi ngi may seetaan 88 laa laa gëj a jël un franc ci Youssou Ndour j'avais 17 ans billaahi wallaahi jàkkaarloo naa ne bi muy jógee États-Unis di dem jógee bàyyi ma foofu jox ma tuuti xaalis pour ma kii si laa ko gëj a laaj un franc ba tey jii fi ma toog dama xëy suba dem ci supermarché yor bale bale xoola benn moment xam nga la la bi ngay booy fobeere ñu indil la bouteille yi kii nga war a jël bouteille garantie du ko dugal ci kii nga sentir nga ne man dakaar laa jóge xam nga kii nii mais loolu est-ce que loolu du man moo ma inculqué tey gi nii man su ma màggee ba sama doom am opportunité dem États-Unis il s'appelle Philippe Ndour ñëpp xam nañ ko day way benn moment bi quand il rentre xam nga ko da ngay dellu États-Unis trouve-toi un boulot et nga opportunité dem boo demee ne compte pas sur moi da ngay jàngi boo wàccee demal nga liggéey parce que bés boo dellu fii di nga xam ne li nga mën a jax mais il faut qu'on incite les jeune la à trouver d'autres solutions pourquoi pourquoi il n'y a pas un Guinéen qui chôme au Sénégal vraiment vous ne vous posez pas ces questions mais c'est ce que j'ai dit mais non pourquoi on n'a pas un Guinéen qui chôme dans au Sénégal après ñu diine waxtu du leen raw jërëjëf Modou Diouf ak Abdou Top alaaji dégg nga lii bu bëndu wax euh, nee na moom teel na jël indépendance am teel a dem bitim réew ñafe xoolul li magam am ba mu demoon ba jaral ko muy dem si yenn grande surface yi di fa fobeere nee na loolu bokk na ci li tax tey jii nii mu mën a taxaw jàkkaarlook doomam di Philippe mën ko wax ne ko soo jàngi jee ba wàcc demal nga wuti liggéey parce que man bu yaakaaree si man waaw buuba ñu ngi koy nuyu. Hmm. Euh, di ko ñaanal jàmm. amiin waaw buuba macha allah ah? <laughs> alaaji yow soo reetaanee rek ba xam ne naroo wax jàmm. non non buuba. <laughs> Euh, dafa wax wax joo xamante ni bii euh, wax ju am solo la. Hmm. nekk wax joo xamante ni ñi muy waxal. Hmm. duñ ko mën a dégg. ndax. ndax buuba. daanaka liñ koy mën a wax rek mooy ku am kudd du lakk maanaam moom dafa am kudd. kuy kudd gi du lakk Youssou Ndour ay kuddam. mais déggoo lu mu wax nee na xaw ma quatre-vingt xaw ñaata la gëj a laal alalu Youssou Ndour. waaw kon laal na ci rek mu am solo laal bi mu ci laalee boobu la am solo buuba fu muy liggéeyee. TFM mais day liggéey dañ koy fay. waa dama def fu muy liggéeyee. TFM. yore prince xaw ma prince aar la fu muy liggéey si kii wu magam. TFM lay liggéey. waaw. fa lay liggéey. waaw fa lay fayoo. mais alaaj loolu bokk loolu liggéey la ñàkk la loo xam ne dañ la koy may. mais mais xam nga. tàllalu loxoom pour ñu may ko ko. est-ce que buuba tey. waaw daf doon neex lool mu ne bi ma jógee États-Unis hmm. ñëw dama bàyyi lépp sama mag ne ci samay mbiri bopp. ñu xam ni. prince A xaw ma mais mais xam nga man li may déggee ci wax boobu maanaam buuba dem na États-Unis bale na def na lépp. Hmm. échec na delluwaat na ci magam mu faat ko. voilà eh, du nga koo déggee noonu nag tamit nekk du question li nga dégg li ma li ma li ma gis laa maanaam buuba bi mu fi bàyyee magam bi mu mujjee laal alalam nee na alal ji 88 ci la paas dem États-Unis ba mu demee États-Unis essayé liggéey mënta liggéey mu delluwaat ca magam. wala déedéet loolu la. Eh, ay ah. ca mag ca magam la delluwaat. mais dafay liggéey. buuba fan nga mës a gis mu liggéey furut ci Youssou Ndour. waa mais. c'est li muy wax nii xam kan moo ko mën a wax. Mm. yàlla mooy def loolu parensaay ci famille. Mm. Youssou Ndour mën na ko wax Youssou Ndour moo am mérite boobu Youssou moo fekk fu dara newul. Mm. mu ne mais bu dul woon nag. bu bëgg peut-être may ma may yeggali bul ne bul mu ne fa. waaw Youssou liggéey ay rakkam yépp jaar ci li nga xam ni mooy wërsëgam comprendre nga hmm. mérite bi day dellu ci Youssou Ndour parce que moom la sunu borom jagleel loolu hmm. Bouba Ndour maanaam ñoom loolu munuñu ko taxaw de si maanaam mënuñu comprendre jeunes yi nga xam ne hmm. amuñu Youssou Ndour maanaam jeunes yi di mbëkk gaal gi genn waal gi di dem amuñu am Youssou Ndour amuñu mag ku tudd Youssou nduur boo xamante ne bi ci lañ mën a jafandu ngir jàll buñ ko amoon duñ ko def ay sénégalais lañ yoo xamante ni dañuy taaba taaba ñafe pour daal dee dem pour jéem a liggéey xam nga buuba dafa wax beneen affaire. joxe na même doomam jël joxe na exemple doomam. Hmm. mais doomam ba tey dafa am buuba buuba am yuusu du dëkk parce que doomam buuba forcé nañu fi ay wayu doomam sax. Hmm. Philippe. waaw yooyu ñu ko comprendre <laughs> yaa ngi dégg. Eh, eh, te daf buuba dafa wax beneen wax boo xam ni. moo tax ma ne bon yi parents dañu nekk ci plateau télé mais parents yi xamuñu. ñuy xamuñu xamuñu dëkk bi. xam nga daf ne gisoo benn guinéen. buy chômer buy chômer. pourtant boo demee Amérique sénégalais yii di dem Amérique. Hmm. bu demee dañuy liggéey de. te ay chômeurs américain ña fa boo demee France sénégalais yi dem France dañuy dem liggéey de mais boo demee am nga gis nga ay xale yoo xam ne ay chômeurs lañ yoo xam ne ay français lañ du dëkk. léegi fii ndakaaru gi dama koy léegi sax génnatuma dëkk bi damay ñëwaat ci biir dëkk bi. Mhm. boo jógee fii jóge booy jóge Saalum. Mhm. ñëw Dakar bu ñëwee dañuy liggéey de. booy jógee fii Bawal ñëw fii Ndakaaru bu ñëwee dañuy liggéey de dañuy liggéey comprendre booy town yi nekk ci town bi juddoo fi ñoo liggéeyut comprendre nga. Hmm. kon mbir mi du mbirum sénégalais mais dafa am noo xam ne noonu la réew di doxee booy yi liggéeyut xam nga la moo tax liggéeyut hmm. da gis fii booy boo xamante ni. commerce bi fi mu toll nii ñan ñoo ko yor boo ñëwee dañuy wax bawal bawal am lu jëm ci affaire électronique yi la ma yor saalum saalum yi ñoo ko yor mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. boo ñëwee tey jii ci maçon yeeg yooyu mm-hmm. séeréer ngay gis ñu ne fa parce que dañuy am nijaay wala dañuy am kii boo xam ne sëfóor yaa ngi nii boo leen gisee ñu ci bari fu ñu dëkk bawal parce que dañoo am seen benn grand frère wala seen benn nijaay boo xam ne ma nga jóge bawal ñëw nekk fii sëfóor bu paree woo leen ñu indi leen ci garage yi ñu commencé di liggéey day ñëw rek xëy mais boo yi juddoo Dakar seen parents yi dañuy dépenser lu bari cim njàng comprendre nga ñu dem ba jàng ba yor seeni diplôme bu ñu génnee te dañ leen di gëmloo ne ne bu ñu ngeen génnee war ngeen mën a jàng ñu génn gisuñu jàng gisuñu liggéey politiciens yi fawee alalu réew donc su ma la déggee mooy mbir mi waaw maanaam da ngay jàngal nit ki mhm. te biñ lay jàngal dañ la promettre ne boo génnee lii ngay doon lii ngay doon maanaam ci biir njàng ma sax dañ lay xeebloo yenn métiers yi. loolu waral tax mu jël doomam yóbbu ko extérieur. pour mu jàng pour mu jàng boo génnee am na yu bari yoo xamante ne bi doo ko def. Mm. mais léegi Sénégal booy yu génn nañ ci lool. Mm. booy yu bari fii di ambulant. genn wàll gi yëpp. ay tey ay lan lañ. Mm. xoolal tey nga jël booy boo xam ne mi ngi jógee Saalum. jàngut dara buy ñëw fii di liggéey mais booy étudiants yi nga xamante ne bi ñu ngi jógee Saalum bu ñëwee fii ñoom ñoo yor seen diplôme yi daanaka genn wàll gi amuñu liggéey. comprendre nga. Mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ni bii mooy mbir mi problème bi problème mu doxalin bi ñuy doxalee réew mi la mm-hmm. ndaw ñi bañuñu liggéey. Mm-hmm. bëgg nañoo liggéey trop. mais liggéey moo yaa ngi dégg mais liggéey moo fi amul. liggéey yi mu wax amoon déggoon naa ko mu wax bay wax ñu jëm ci wàllu raxas oto yeeg et cetera ak affaire yooyu. comprendre nga am na loo xam ne moom mii tey fa mu doon liggéey lu tax mu demoon ba Amérique daw. di raxas ca restaurant yi bu ñu ko indi woon fii ci restaurant Dakar. mën na moom rek sori na doomam lan moo tax mënu ko def. fii waaw lu tax doom ji fi mu toll nii mënut a ñëw raxas bi. restaurant du ko ko def mais da ko yóbbu Amérique pour am na loo xamante ni bii moom la koy dawale. donc yu mel noonu. Mm. mooy li nga xamante ni mooy problème guinéen yi. Mm. dàq ñoo liggéey. sénégalais yi déedéet. Mm. mais dadi dañoo jóge seen réew ñëw ci beneen réew. sénégalais bi jóge ci réew mi dem ci beneen réew mi ngi liggéey yeneen liggéey yoo xamante ni bii mi ngi koy def ci la yor njabootam ci la yor léppam kenn dàquleen a liggéey mhm. ay ndaw ñu bëgg a liggéey lañ ñi ngi nii boo déggee yoon woo dégg ñu koy wax lu ne dañ ko ciy daj pour dem mhm. lu tax pour mën a jariñ seeni wayjur mhm. kon sénégalais bu ma kenn waxal ne sénégalais yi nanguwuñ liggéey senegale yi nangu dañoo liggéey dañoo gisut liggéey loolu mooy li nga xamante ne bi mooy moo fi nekk jërëjëf ñu bàyyi la nga tàgg toog di naan attaaye tegal la sama tànk ndaw a toog fële naan nanguwut a liggéey mm-hmm. te fekk liggéey laa gisut wallaay wallaay bañu ba woon a liggéey mais gisuma ko mais ndaw day doon jàpp ni man mii nanguwumaa liggéey ah, naan fu keru suba gi fekk keroog ngoon nga fekk ko fa <laughs> may tuxali siis <laughs> rek nga c'est que loolu mooy li nga xamante ni bi mooy ngaa liggéey mais gisoo ko voilà donc loolu la ñu bàyyi la nga tàggatoo waa jërëjëf ñuy joxante dig daje insha allah mm. beneen àddina ci kàttan insha allahu rabbi yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba booba di jaajëfal bu baax a baax Modou Diouf Abdou Top Lay Diallo nuyu son bu Diop ak Assane Messere mi nga xam ne chaque jour rek mi ngi ñuy teg pression ci émission bi le ngi leen di jaajëfal di leen jox di daje nag beneen lundi ci l'émission des émissions.